الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام واستوى على العرش اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم ناصر الهادي اهدنا الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعصنا اولئك رفيها ذلك فضل الله وكان العليم السلام عليكم ورحمه الله dafa amul lu ma suma góor ga xaaj baabu ndaw daan wax mu ne ma soppuma di waxtaan soo Cheikh Ahmed Tidiane ndax sama maxaba ci moom daf may yóbbe ma wuññi secret yàlla ma gisee daa yegg tey di suma soppe El Hadj Baba El Hadj Baba ah, jërëjëf wax naa ko léegi wallaay wax na ma ko ma ne Hadj Ba Gora dafa daan wax ne naay wax ci yonent bi. Mhm. ndax man di naa ci anwaaru yonent bi ba. Mhm. lu aajo rëy rëy bi ma ko indilee. Mhm. bu ma bi ma bu rëy xaw ma ci barke yonent bi yonent bi waaye du ma wax ci Cheikh Tidiane ndax la. moom laa xam ci moom. oustaz. digganteem ak ci yonent bi. ba dugg ci sifaat yi ak asmaa yi fal awsaafu fal asmaa wal awsaafu wal تجوز إلى أهل الاستفسار فغير الله إن قطعته قدم على التفصيل والإجمال بني يعني. طيوة طيب. يلا تقول حقيقة محمدية يا لا كنت بخاف ما خب يلا أول لولا جنان يلا يلا تبل صلى الله عليه وسلم لقد كنت ذهبت قبل ان يشف الخطا وقالوا اني ذاكر لك شاكر ولما اضاء الليل اصبحت شاهدا بانك مزدور وذكر وظاهر لا اله الا الله sallallahu تراب بتراب بعينه وماء الى ماء الذي كان اصله فلم يبق الى الله لا شيء غيره فما صم موضوع وما صم بائر ولم يبغى الى الحق بالحق وهو ولم يبغى الى الله لا شيء غيره du yàlla yonent bi rek xadratu xursi inda mahwi siwaha laa siwaha yaa man yaruhu liqaha xadratu xursi ayni wajhi ilahi fa budda mutasin yaruhu qulaha muzharatu ilahi lam ara alxayra wa kafa alxayra inda namaulu kaas boobu ban la mooy kaas bu Maulana Abul Abbas nandal ñi mel ni El Hadj Babu Babu Ndaw ñi mel ni El Hadj Oustaz Babacar Ndaw ba bu ñuy wax ci xadratu ilahi yi wala ñuy wax ci xadratu Muhammadiya wala ñuy wax ci xadratu Ahmadiya nga xam ne Cheikhuna Tijaani moo toog kon la ko xale ba waxoon ne ko yow yonent bi mu ngi naan yonent bi yonent bi kenn xam ko moom mooy yonent bi waaw mooma برزت منها حضرة مختار أيمن بها إها وهو فضلهم العينات وعينها والمرأة عين حق حقا وسرها فأبصار عين حق ترن صفاته كما تأتي المرأة لشرط مثلها بها عرف الرحمن جل جلاله لا إله إلا الله ويا الله الله أكبر طب بيبي da ngay xam ne doo màndeeti yaa xamul ne xew boo yëgee dara di nga xam ne lañ doon uti mu ngi fii man nag El Hadj Babou Ndao dama defal lu mu defalul kenn sañ naa ko wax moi je suis un francisant j'ai étudié l'école française j'ai fait des études universitaires waaw tubaab laa jàng nasaraan jàng ba université di làkk anglais di wax dara dama dugg Mauritanie ma tase fa benn naar may jënd ay téere mu ñëw nuyu ma maa ngi leen baax ma ne xinama kuntu fi Nouakchott daxaltu fi maktab li astari kutub fi loxatu loxatu fi loxatu français daxala waaxid minhum wa yaqulu li yaa axi maza turid aqulu uridu الكتب في لغة فرنسية ويقول لماذا في لغة فرنسية؟ أقول لأنني لا أعرف لغة لغة عربية لغة آه، فرنسية وإنجليزية فقط وهذا إنسان يقول لن لم تجد العلم آه، آه، إلى أن تتعلم اللغة العربية الآن يا أخي كثيرا من كتب ترجمة في لغة العربية في لغة إنجليزية في لغة دابا بغا دابا دوغ دي جند أي تيري في بن بيبليوتيك دي Mauritanie بن نار dugg si mu ne ma sama mbokk mi lan nga mu ne damay jënd ay téere mu ne téere lan mu ne ko téere xam-xam waaye ci langu nasaraan parce que man nasaraan laa jàng dégguma arab ma wax ko loolu ci arab mu ne ma doo dégg doo am xam-xam lu dul ne da nga dégg langu arab ma ne ko mais téere yi ëpp ci àdduna bi firi nañ leen ci arab firi leen ci français firi leen ci anglais mais bàyyi ma sama français mu ne ma waaye nag di nga dégg arab fekk na mag ñi mooñaale nañ ma ak arab ndax jànguma ko wala njàng ma soriwut waaye takkoog nitu yàlla dafa am solo dafa am bés ngeen baal ma ma ñëw seeti suma way juru El Hadji Babou Ndaw ko bàyyi yu bare bare te ki na ci du mu ne ma bu neexoon bor yooyu kenn du ko tuddati ba yomal waaye du ma def loolu dama lay ñaanal nga am ba fay ko ci sa coobare bopp waaye dootu la ci sonal ah ma dem ba mu am lu ëpp ma gan ba mu am xaalis war oto bu rafet romb waaye dama yore loolu bor ya këram sama xel dem ci kii de am na lu ma ko yor ma gaare sama oto jàkk ñëw nuyoo kenn fayu ma gis buntu ba tëj nañ ko ba bind ne fii lañ koy jaay société bi tas na <laughs> ah may laajte ba ñu wax ma kër waay ma dem seeti ba ma ñëwee fekk ma fa fekk fa soxnaam ma bàyyi sama numéro téléphone mais bu ñëwee na ma oo ci numéro bi waaw waa ji woo ma ca numéro mu ne ma dégg naa da jàdd sama kër di fàttaliku bor boo ma amee ma ne ko waaw mu ne ma bor ba nangam la bari woon mu ne ma waaye fi mu ne nii maa ngi ndakaaru bu ma lekkee sama xarit ñoo ma sarax lu ma lekk mu ne ma man sama compte bi may foyee bi ma doyewulul dara mosu def manqué fanweeri million ak juróom wala ñeent fukki million nga xam ne lii pour caaxaan laa ko doy te tey bu ma lekkee dañ ma sarax ma lekk ah, mu ne waaw ma ne ko ah, man de yàlla ma ne na ma gàtt naa xaalis li ma la ameel boo ñëwee tey tey tey ma fay la mu ne ma kon maa ngi ñëw mu taal oto fay ko ma mbuur mu ne ma xaalis bi boobu ko fayandoo woon tey li bari yëpp lu fanaan ndax bari naa ay bor bari naa ay soxla dama ko bëgg bàyyi fii ci yow weer wu ma ñëw nga jox ma juróom benn fukki junni ma dem def ci dépense mu kër ñëw toogaan ma kër muy jeex muy dimbal ci man ma ne ko ci yow la ci yow la def bu la neexee ma jox la ko léegi bu la neexul ma bàyyi mu ne ma jox ma jox ma ci juróom benn fukki junni ma yëkkati juróom benn fukki junni ko koy jox waaye ji nag dama yàlla jégal ci ko cedd daf ko xawoon a dab ku xawoon a beew mu tàllal loxo càmmiñ pour jël xaalis ma ko bul ko jëlee loxo càmmiñ dafa am tawasul bu ma bëgg a ci yow maa ngi fàttaliku la ma El Hadj Babou Ndaw waxoon ne dinaa la ñaanal ba nga am xaalis nga fay ko ba mu mat ma ne ko fii ma toll mën naa la fay ba mu mat mais man tamit nit yàlla daf ma ñaanaloon damay def tawassul ci moom ma ñaanal la xaalis bi mooy sa ubbeeku jël ko sa loxo di jox. Ah, waaw mu jël ko ci loxo di joxam yàlla def mu dem dem fa mu dëkk joxe ci dépense am rek la ci ay problème am weer wa ca topp mu ñëwaat ma joxaat ko juróom benn fukki junni mu dem lay rek la ci ay problème ba weer way laata dellu si. am ay espagnol yu ñëw Sénégal doon wër ku ñuy defal affaire cosmétique ñu dem chambre de commerce Dakar di laajte ñu jox leen benn kayit bu yàgg ne leen xool leen fi ma ngeen fi gis adresse koo xam ne mën na def lii ngeen di ñuy seet adresse gis waaja ndekete moom ëpp nañ fanweeri ak amoon na benn société bu daan def affaire cosmétique ñu ubbi yëpp ci moom ne diw mii ñu ne nañ ko seet ñu wër a wër a wër di koy wër di ko wër ba gis ko ne ko dañ lay invité Espagne nga ñëw ñu collaborer ak yow ubbil la société waa ji woo ma ne ma invité nañ ma Espagne dama foor a dem seetal ma te loolu nga ma yoraloon lu ma daggee bii mu ne te ngaa jël li des mu ne déet daggal ma bii ma jox ko juróom benn fukki ñoom O ji dagg ci biir dem Espagne ba mu ñëw conteneur yi li mu indi fii ci bagage ay conteneur a ko indi ci port bi mu ñëwee mu defaraat këram jënd oto xëcc téléphone jël secrétaire ba ma wooyee ne naa ñëw di ko seet si ba ma ñëwee pour ma jot mu mel ni commerçant bu nekkoon Sandaga dañ leen wax dama jëndi marchandise waa ji këram dafa mel ni marché bu tas mu am ay millions yu bare bare ci instant bu gàtt keroog la mu fa jënd man ci ay échantillon rek yóbbul ko xale jigéen ñi ñeent ci junni ak juróom te gën a tuuti nag lañu doon ci El Hadj Ndaw caatam yii ku leen poñe nga fekk ko ci ñoom caatam yi waxam maa ngi kon suñu pas-pas mooy def mais lu ñu bëgg ci guddi gi ak ci lu guddi gi jawante ko ci jaam yàlla yi yàlla faj gën baax tuuti laa lay wax ci bay baabu aw soppe bi yonent bi soppe Seexu Tijaan sëriñ Sam Mbuur déglul bu baax tëkkaleeg baabu ndaw jay nañ la ndax nañ la yëpp billaahi baabu ndaw mooy kay léeg lu kummaane sëriñ Samb Mbour déglul bu baax tuuti laa lay wax ci bay baabu ndaw soppe bi nen tabi soppe say xuti jaani li tax ma jóg di wéy mooy sëriñ lu kummaan gee buñ tëkkaleeg baabu ndaw jay nañ la ndax nañ la yëpp فتبارك الله أحسن الخالقين يلا يا الله فلتذكر باب تيجاني الحمد لله هذا سيد أبونا كتاب مزلكم فلتذكر كواني آمين للآمين بجاه دين الوجود يلا يا مسك الأيلون في دنيانا الحمد لله هذا سيد أبونا كتاب مزلكم فلتذكر كواني يبقى تيوم يبقى te def lu kenn mën ko def fii ci Ndoukoumane képp ku teew bi jóg leen taxaw jaay ba ma delloo jukkal baaxu ndaw te def lu kenn mën ko def fii ci Ndoukoumane alhamdulillah ayata seydi abona ke taw ma jox gi may may sangam Ndoukoumane alhamdulillah ayata seydi abona ke taw ma jox gi may may sangam Ndoukoumane yow mi xalaat wi di ma tekkal soo di borom doom ji mu jur moom nag moom la Ndoukoumane. alhamdulilah yaa sant daaboo naan ki tax ba tax bi waaye mooy sant Ndoukoumane. yow mi xalaat bi di ma jégal soo di borom xel. doom ji mu jur moom nag moom la Ndoukoumane. alhamdulilah yaa sant daaboo naan ki tax ba tax bi waaye mooy sant Ndoukoumane. tabax ji ma bëgg teel waral si ñëpp a koy gis. wuy na yëgën te bii wuy na teel mu di jaani. alhamdulilah. وجهبي ويبيسا يخلقواني حقك تبتيض مدينة المنارة ومكنا كلبي في جنكماني الحمد لله يا تصدق يا بوطا جبت وجهبي ويبيسا يخلقواني أمدي في جكن أمدي كريمنا جدوك في شفاكماني الحمد لله يا تصدق يا بوطا جبت وجهبي ويبيسا